Eh, maa ngi ñaax nguur Sénégal maa ngi leen di wax ni ñu bàyyi xel ci seen dossier bu ñu yor noonu eh, dañu am laajte bu ñu laajte Mandina Mankaañ suuf waa Mandina Mankaañ jox leen suuf na leen waa Mandina Mankaañ yóbbu Mandina Mankaañ fu ñuy wax ni ñun Kantel la ñu nekk yàq-yàq ñu nekk yàq ni kanteen la ñu nekk di yàq waaye du Mandina Mankaañ te su ñu xoolee ci biir liste impacté bu ñu yor yaa amul benn man eh, Mankaañ bi nga xam ne bokk na ci liste boobu waxoon naa ko ci biir ndaje boobu ñuy naan suñ fi amee dañ ko nar a séddaatle ak mankaañ yi ma ne leen xanaa bu mankaañ yi seen suuf buñ koy buñ koy séddaatle ñun dañ nañ ci bokk. boo gisee ñu nekk fi ci groupe bu ndaw seetaani la ñu bëggul amoon nañu fii ci biir weer koor bi ñetti ñetti jokkante jo joŋante joŋante yooyu la ñu bëggatul mu am fii bu ñu nee Casamance dañu bëgg jàmm. garab ñuy daaneel ay doomi aadama ñoo samp garab yooyu te développement nguur dafa ne développement ñun suñ bopp xam nañu di développement moo ñu mën a yóbbu ci kanam développement boobu loolu lañ nekk di def fii waaye comme ko gis nañu ni préfet su sous préfet gis bëggul ñun suñu développement nañ ñu def wax nag ñun lan lañu fan la ñu nar a teg suñu génnee fii fan la ñu nar a yóbbu ñun. 40 ans de guerre en Casamance o oh, ça suffit ça suffit ça suffit gars yi fa nekk demala ne ñetti téeméer la ñeenti fukk ak juróom-ñeneen waaye ñoom seen liste bi keroog ba ma fa demee bu ñu doon liim dañ ma liimal eh, eh, juróom fukk ak eh, ak ñaar fukk. ak eh, ñaar fukk ak juróom ak ñaar fukk ak juróom benn te loolu nanguwuñu ko gisuñu ko te teguñu ko suñu kanam ñun lu ñu leen gën a wax lu ñu gën a wax sax waxuñu affaire liste dañu ne Mandina Mankagne ak Kanteen ñaar dëkk la yu bokkul est-ce que bu dee projet moo ñëwoon fii pour joxe xaalis ñu ne Mandina Mankagne est-ce que dinañ ko andi Kanteen loolu nanguwuñu ko te fu ñu dagg suuf si du ci caagane ci frontière suñu diggante ñun ak Mandina Mankagne la dañu ñëw ba ci digg bi ñu dagg ko foofu loolu nag nanguwuñu ko tey nanguwuñu ko ëllëg